asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit mbokki taalibe yi seen mbokk Babacar Kébé mooy dikkaat fi yéen ci ñaareelu bind bii di sulamul wusuul te tàmbalikaay bi ñu xalaa yi ngi toll fii sëriñ bi di waxe ne ilaahi fa salli ala man du'i bi barrin wa maahin li kulli xabiir nee na yow sama borom mi nga xam ne yow la ñuy jaamu maa ngi lay ñaan yàlla na nga doolee xéwal ci yonent bii nga xam ne danañu koy wooye bar te mooy aji baax bar nag ci arab moom lu bari ay maanaam la ndax barun day tekki ku baax barrun day tekki jéeri waaye rek loola euh, seen maanaam nam ñëwee ci biir wax ja ca lees di xamee lu ñu jubloo wax te boo leen yóbboo ci ay jam xoon seen jam yooyu day daal di wuute ndax barrun mii di tekki aji dañ koy jam xoon barara ko jam kon day daal di wuuteeg bar ba nga xam ne jéeri la ndax bar bay tekki jéeri ab jam xom baraar yii la waaw kon loolu lu ma taxam la hmm. kon nee na yonent boobu nga xam ne dañ koy wooye albarru muy ku baax di ko wooye it maahin di ki nga xam ne moo far lépp luy aji ñaaw dees na koy wooye ñaatu yëpp dañ ko wooye albarru di ko wooye almaahi yi li kulli xabi neen yonent boobu nag yow sama borom maa ngi lay ñaan yàlla nanga ko dolli ay xéwal léegi nag ilaahi fasal yi bari woon na fasal yooyu nag da ko indil nag ay mafulul mutlaq mafulul mutlaq nag xam ngeen ne day day dafay feddali li feddali aj wax waaw moo tax mu ne salaatan takufful balaa war radaa te jurru munan laa tashuubu ma soox maa ngi ñaan nga dolli ko xéwal goo xam ne dafay fekk ay balaa di fekk alkande lu jooy am waaye bu leen fekkee ba noppi mu ñoddi ay xéwal yoo xam ne xéwal yu dara du njar la nekk go nekk xewel goo xam ne ay xéwal yoo xam ne xéwal yu segg ba jël la ca maanaam ba jël ba ba ba mu des lu baax rek rek loo xam ne nii maanaam luy safaan moom segg nañ ko sànni ma suuf mooy lu ñu mooy loo xam ne nii dañoo teqale bay na bay na radi wal jayid yi waaw nga ne jël nañ al jayid wàcc al radi nee na xéwal yu noonu laay ñaan nga defal yonent bi ay xéewal goo maanaam goo xam ne day day fekk ay balaa di fekk ay alkane du ca yem waaye di ñot di yoo xam ne dara du ko njar lu ñu teqale ba sànni lu bon la wacc fu lu baax rek day doon mu indeti moom ma fa lu mutlax ne salaatan turaqi li naylil xulaa ndax fasal yi ma waxoon yëpp dana ne indi ay ma fa lu daanaka moo tax mu ne salaatan turaqi li naylil xulaa qawil uqula bi aqdin saxiix maa ngi ñaan yàlla na ko doole xéwal doole xéwal goo xam ne dafay yéegi nit ki jëme ko ci am ay xeeti doole xéwal goo xam ne dafay may doole xel ya te maye leen ko ci sababu moyenub pas-pas bu wér bu dër buñ am ci yow yàlla mu mu dëgërale ko seen xel xéwal gu mel noonu laay ñaan nga dolli ko yonent bi alayhi nga xam ne ku moom sax da cay làqaale loolu salaatan tajuudu bi xayri munan yazuulu biha xaybu nafsin wa maa ngi lay ñaan yàlla nga ko doole xéwal moom yonent boobu doole xéwal goo xam ne dafay tabe di di may nit ki gën ci ay xéwal gën ci xéwal yoo xam ne waxuma rek mu doon xéewal waaye ka am xéewal ya ay yi mën a teq bakkan ak di teq ruu ba tee ko ci yàlla tee am lu baax ay bi yooyu day dajaale ca xéewal googu nga def la yonent bi alayhi salaatu wasalaam salaatan turini huna wajhahu ayaanan li yashfiya qalbil jarih maa ngi ñaan yàlla nga ko doole xéewal doole xéewal goo xam ne danga ma ci wan fii fi àdduna yow yàlla jëmmam jëmmam yonent bi alayhi salaatu wasalaam ma ne ko jàkk dara la dox suñu diggante ngir mu saafaraal ma fajal ma sama xol bi nga xam ne xol bu amu jam xol bu ami jam-jam la xol bu balisi la xam nga ak jëri moom mooy koo xam ne majruux maanaam ku jam bu dee ci lu mel ne accident bu ne al jëri mooy koo xam ne dafa balisi buñ ko jàng xoo ne jarxaa salaatan turabbil mu salaatan salaatan turabbil musalli allazi li shay'in mutih nee na maa ngi ñaan yonente boobu yàlla na ko doolu xel doolu xel goo xam ne kuy julli ci moom xéewal ga dana ko tarbiya yar ko ba bu doonee koo xam ne iblis da ko doon woo di ko jëme ci mbir moo xam ne mbir muy alaga la su boobaa tarbiya gëm koy tarbiya dana ko tee wuy ji ca woote iblis boobee mu tey mooy muhlik waaw dégg nga kon salaatan turabil musalli lazi daahu lahiinu shay mu tey maa ngi ñaan nga dool xel dool xel goo xam ne dafay tarbiya di yar aji julli ci yonent bi joo xam ne iblis da ko doon woo di ko jëme ci luy alage saraftu lisaani wa qalbi mahan ilal mubtaxa minhu xayru futoox nee na naa sama lamiñ nag ak sama xol wëlbët ndoo naa leen jëme ko ci kañuy sàkkoo ca moom gën ji ubbee ya kañuy sàkkoo ca moom gën ji ubbee ya nee naa samay sama lamiñ ak sama xol yépp jëmee ndoo ko ca moom te mooy yonent bi alayhi salaam ndax mooy ki yàlla teg ci bunt bi kuy jaar jaare ci moom moo tax mel dañ ko mel ne dañ ko ne al mubtaxa minhu kooku kan la war a doon waaw am dañ ko laaj mu ne ilal mustafa al muntaqa al mujtaba xanaytul karima shafihan nasih sama xol ak sama lamiñ wëlbatee noo naa leen jëme ko ci ka nga xam ne moom la yàlla tànn al muntaqa ba noppi nekkaat ku ñu tànn ci biir tànneef ya al mujtaba ba noppi tànnaatat ko ci biir ñooñeeti nee kooku laa jëmee sama lamiñ wëlbataan sama lamiñ jëme ko ci moom ak sama xol yépp mel na dañ ne ko ki nga mu ne xanaytu maa ngi jubloo wax al karima shafii nasiye aji tedd jubloo wax ka nga xam ne mooy aji rammu kadi ka ñu nangam moom ka xam ne ab laa biire kat la woon waaw wa bi nasihatin li kulin samaha kon kooku am na nasiha la nasiha mooy kon bàyyiwut kenn wa bi li kullin samaha ñëpp la mayoon ak laay biir ñëpp la ko baaxee mel na ba tey li ñoo kan la te mu bëgg wax kan la ba ñëpp xam ne ki wax kenn la mu ne huwal muxtamal muktafil muktafa bihi wal wakiilul ajirul raboox nee na moom al muxtama mooy kañu tànn al muktafi ka nga xam ne ko doyloo yàlla la waaye al muktafa bii di ku ñu doyloo moom ku doyloo yàlla waaye moom ci boobu kuñ nag la ci biir mbindeef yi du ci kenn te mooy ki xam ne moo res lépp gannaaw bu lépp ndax lépp ci loo xam ne ko yàlla teg al ajiru mooy aji def ja aji jëf ji nga xam di doon jëf ngi sàkku yool waaye nag ar raboox la de kenn gënu koo tonawu waaw ndax ku sàkku yool ku nekk bëgg ngaa tonawu moom nag al ajiru raboo ku dem bañ ne ko li yax fa laka la maata xaddama min zanbika maata axara wayti ma nihmata alayka wa xam ngeen ne kaana ajiran raboohan ba tey mu ne bu ngeen ko xamut ma wéy ñu ne ko wéyal mu ne mu rabban mu rabbin rasulun nabi najiyul ilaahil kalimul fasih mu rabban ku ñu yaroon la ku ñu tarbiya woon la moo ko wax ne addabani rabbi fa ahsana ta'dibi kon loolu waxi boppam la moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam kon mu waaye mu rabbin la ab yarekat la woon innama buxistu li utammima makaarimal axlaaqi moo ko wax moo tax sëñ Tuubaa wax ko beneen salli xalal mu addabi zil xormatil mu njëkk bi ismu mafoon la bu ci des ismu faayil la mu addab mooy ku ñu yar ba ko ci yoon ba pare la demal yare nga nekk ismu faayil moo tax mu rabban ismu mafoon la mu rabbin ismu la waaye rasulun la woon al la lu yàlla yebaloon ci doomu aadama yi nabi yi nekk ku ñu sol xam-xam nag bi nga xam ne moom sol ab yonent bu ñu yónni najiyul ilaahi aji deyaale woon ak boromam la alkalimu aji waxanteeg borom la woon alfasix te nekkoon ku leer aji wax ku am éloquence kon yii yëpp fi ne nii ay jikkaloo yoo xam ne yu rafet la yu yu ñu taamu yu yàlla taamu ci biir dama def ko ci moom ab yéen ne moom yàlla day taamu ay yëmi taamu yëpp def ko ci moom doog ko yebal koo xam ne ne ñëw bokk ca xeetu yonent boobu nag yooyee ñu taamu ci yonent booba ba noppi doog ko yebal da ngay fexe yooyee ñu taamu ci moom yow nga sàkkul ko sa bopp fàggul ko sa bopp ngir mën a taxaw représenté yonent boobu ci biir xeet ba di ko ci doxal moo tax Sëriñ Tuubaa di jàngale jikko koy yonent bi alayhi salaatu wa salaam